assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am mbégte kontaan àndaat ak yéen ci suñu dars jawahir al maani tey nag ñu wara ànd ak yéen ci suñu dar juróom fukkeel bi ak juróom benn ñu nekk ba tey ci al juzu saani min al kitaab ñu ñaareelu xaaj bi ci téere bi ñu toll ci mawlana cheikh radiallahu anhu di firee xadisul qudsi yooyu nga xam ne cheikh sidi alim harazim radiallahu anhu laajoon na koko fi ñu daanelee woon nag ci ay kàddu mooy ci nga xam ne mu ñuy jàngal lan mooy gaayatul mushahada dayob mushahadatu dayob mushahadatu mu mooy ci nga xam ne jaam bi dafay dem ba gayru ak gayriyatu léppay faru ci kanamam ba dootu fi gis illa alxaq bilxaqi fi lxaqi lilxaqi an lu dul yàlla rek ngir yàlla ci yàlla mu ñeel yàlla wëleef yàlla duñ fa amee xam-xam duwut jëmm juñ koy gis wala xel buy xalaat wala luñ fay imaginer wala di ko fa gam-gamle amul num mel ak nuñ koy jëfandikoo amul kamiya bi maanaa quantité amul benn askan boo xam ne dafay am lépp dafay jeex réeru jeex réeriyatu jeex yàlla rek moom moo fay def bu ko defee nag jaam bi faru ci jëmm yàlla bi ba keroog muy toxaloo ci xaal boobu jëm ci xaal bi ñu tuddee xaalal sax wu muy wuri saa yu toxaloo nag ba jëm ci xaal ak sax wu moom la sufiyanke yi tuddee alxayaatu baadal mawti dund ginnaaw dee dee googu nag mooy dee ak fanaaw jeex ci yàlla ndax yàlla moom faaw rek jaam yegg ci moom moo xam benn ci ñaari façon yi li ñu tuddee almawtul ahmar goo xam ne sa ruuxu moo rocceeku ci yow nga dee faaw nga dajeek borom wala dee gi xam ne mooy dee ak aarifina yi te jeex ci yàlla te loolu nag di fanaawu mooy maarifatul maratibil xaqiya nga xam martabay xaqu yim am niki noonu nga xamaale martabay xalqu bi ràññatle yi nga xam ne ñoo ci yiñ jagle waaye ràññatle xaal yi ràññatle yi tamit li ñu tuddee almaratib wa ma fi kulli martabatin من الأحكام واللوازم والمقتضيات كلها فيقيم حقوق الله في جميعها بكدفينك فهو الصديق الأكبر kooku la ñu tuddee siddiqul akbar bi maana xam yi أبينا خمن يمن المراتب الخلقية رنر لخافي أتحال ينا خمن يمن حال يجم في صديق الأكبر أتلن لونه لم لم وتي أي أت أتي وريف نخمكو بكو دفينك نتخول أقوب يالكي بولي sa ci sa tasarrufaat képp koo xam ne nag yegg na ci loolu te maqaam boobu kenn moo ci yegg borom boobu maqaam boobu moom la ñu tuddee ak siddiqul akbar dañu war a dooree fi ñuy waxee ni qawluhu xatta uhibbahu wax ji mawlaana rasulillah sallallahu alayhi wa sallam jële ko ci borom bi muy wax ni jaam bi du góorgóorlu ci nawafilul xayr yi lu dul ni rek dinaa ko bëgg mu ne maanaahu maanaam bi mooy iclam xamal ni anna mahabbata allahi lil abdi mbëggeel bi yàlla am mu ñeel jaam bi huwa ifaadatu zaatihi almuqaddasati alayhi mooy bëbbal jëmmam ji sell ji ci jaam bi fa hiya gaayatul gaayaat loolu mooy dayow dayo yi wa ilayhi yantahi sayru kulli saa'ilin foofu mooy daytalu doxu bépp doxkat képp kuy dox jëm ci yàlla boo yeggee ci yàlla taxaw mu ne man wasalaha képp ku fa yegg kamulat lahu mataalibu dunya ay bëgg-bëggam yi nga xam ne ñooy bëgg-bëggay àdduna wal axirati ak alaxira foofu lay mati sëkk qaala wax na ni xatta uxibahu ba ma bëgg ko xataa uhibbahu nag yaani lim ci nam mooy uxiida alayhi mahabbata zaati ba ma bëbbal ci moom bëggeelu sama jëmm ji ala xaddi qawlihi mu tolloog dayob waxu borom bi taala mi nga xam ne kawe na ci ñuy wax ni yuhibbu yuhibbuhum wa yuhibbuuna yuhibbuhum dañ koy bëgg waaye tamit wa yuhibbuunahu moom i tamit daf leen di bëgg wala moom da leen di bëgg ñoom di bëgg falawla mahabbatuhu subhanahu bu doonutoon mbëggeelam moom ñi nga xam ne mooy borom bi subhanahu tudd na ma sellam wa taala te kawe na lahum ñeel leen jaami maa wasalu ila mahabbati zaatihi ci bëgg jëm yàlla ji ndax mbëggeelu ku ndaw ki amul njëriñ mbëggeelu ku moo am njëriñ mbëggeel bi nga xam ne ku mag ki bëbbal na ko ci ku ndaw ki moo jur ku ndaw ki mën a yegg ci bëgg jëm ku mag mu ne qawluhu waxam ji nag fa ida ahbabtuhu su ma ko bëggee kuntu samaahu ma doon ay déggam ba xadis bi jeex mu ne yashhadu al abdu fi nafsihi ci boppam dafay seedu ci jëmmam ji kattan goo xam ne kattan ak borom bi subhaanahu wa taala ndax ku ne xam na ni al al qudra dafa bokk ci yi nga xam ne sifatullahi la nelaw yàlla yi nga xam ne mu koy wàcce ci jaam bi nag bu demee ba yëg al quwa al ilahiya boobu ka annahu huwa zaatu al muqaddasa dafay dem ba ni moom mooy jëmm ji sell ji bi jamii sifaatiha ci mbooleem yi wa asma'iha ak ci mbooleem turam yi maanaam yàlla buy def tajalli ci jaamam bi dafay def tajalli bu mat sëkk jox ko jëmmam ji jox ko turam ko meloon ka annahu huwa ba mu ne ni moom la walaysa huwa te du moom ndax jëmmi doomu aadama bi jëmmi majaaz la jëmmi majaaz nag boo ko déggee mooy jëmmi bi nga xam ne mi ngi ballee ci al jëmmi borom bi subhaanahu wa bu delloo day jeexaat ci jëm yàlla ji kon du dara walakinahu waaye subhaanahu tudd na ma sellam wa taala te kawe moom yàlla afaada alayhi dafa bëbbal ci jaam bi min anwaari sifaatihi ci ay leeru ay leeru wa asmaa ak leeru turam li uluwi maqaamihi ndax kaweeg maqaamaam xatta annahu ba mel ni moom innama yaxmilu maa laa yaxmiluhu jamiul xalq dafay dem ba yëg ni sax moom lim yenu duut loolu la bindee ci yenu min asiqali ci ak diis xatta qaala baadul aarifin ba sax kenn ci aarif yi ba ko yàlla yenee te jëlleem boobu nga xam ne daf ko may jëmmam ji may ko merom yi may ko turam yi ba ko yàlla defalee loolu aarif bi dafa taxaw wax ni من كشف له عن ذرة من التوحيد كبكو قمن هني من نانكو تولني كيب حتم في توحيد في كان يالا حمل السماوات والأرض والأرضين دفين أثمان يسجرهم نار ينسوسي جرهم على شعرة تبن تفكروا من أجفان عينيه في خف لنخم من ويخفي بتم بن خفي بتم حتى asamaan juróom-ñaar yi waaye attan na suuf itamit yi nga xam ne ñoom ñooy juróom-ñaar yi suuf kon loolu li ñuy tegtale mooy aarif bi eh, yàlla daf koy defal kattan boo xam ne lépp yàlla daf daf koy def te jël yi mu wàcc ci moom loolu di lu am solo من لأنه نحتم معارف نهد في هذا المقام بالقوة الإلهية دفو بوري في مقام بوبو في كتنة يلا فهو يندر بالله دفو قول في بيت يلا كأن من دفو يا يلا كأن ذاته ذات الله من جمم جمو جم يلا تعالى كأن مم يلا wa yasmau bihi te ci jëmm te ci jëmm jooju ci lay déggee wa alaamatu hada nazar mandargay boobu la xool nag wa sama billah ak déggee ci yàlla fa fi fa fi nazari xool xoolee ci bëtu yàlla yi nag mooy an yanzura al wujuda kullahu min arfihi ila farsihi min haytu la yaxfa minhu zarratun waxida maanaam an yanzura muy xool al wujuda mbindeef bi kullahu mbindeef yi kullahu mboole seen min arsi yi lu ci aras ak yàlla gi ila sorti yi ba ci suufam si min xaytu laa yaxfa minhu zarratan xool boo xam ne képp sax ci képp atom du ko du ko du ko du ko euh, réer lépp lay gis wa yastawiya amruha fi ma kaana xalfahu wa amaamahu léppay yem ci moom li nekk ci ginnaawam ak yi nekk ci kanamam ni ñu gisee kanamam noonu lay gisee ginnaawam wa an yaminihi ni ñu gisee ndeyjooram wa an shimaalihi noonu lay gisee yi tamit càmmoñam wa fawqahu wa taxtahu ni ñu gisee li ci kawam noonu lay gisee li ci suufam kon jaam bi bu demee ba yegg ci da ngay gis ni dara dootu ko umpu yara dalika fi waaxid loolu lépp daf koy gis ci benn aan bi ci benn jamono ci benn géndeeku bi dufatan waxida lépp muy lenn wa yaraahu mu koy gis kel jawharil fardi comme wurus yi nga xam ne kenn lenn la alladi bi nga xam ne laa yaqbalul qisma du nangu mukk ñu di ko séddale fala taxtalitu alayhi almariyat te yi ñuy gis ak nu mu bëri bëri du jaxasoo ci moom wa in ixtalafat axwaaluha dent ca seeni melo dafa wuute wa awdaaha seeni anam maanaam niñ ko tëggee dafa wuute dara du jaxasoo ci moom wa xarakaatuha donte ke seeni yëngu dafa wuute wa alwaanuha donte ke seeni melo dafa wuute kulliha mboola seen bu ko defee yaraaha ala ma hiya benn bu ci nekk daf koy gis kanam nekkee ala ma hiya alayhi tufatan waxida fi aanil waahid lépp nag daf koy gis benn yoon ci benn jëndeeku fi kulli jihatin min jihati ci bépp anam ci anam maanaam kanama ginnaawam kawam ak suufam ndeyjooram ak càmmoñam wala taxtalitu alayhi darratun waxida benn ci pepp yi lenn du du du du jaxasoo ci moom wa sababu hadihi ruya li sabab nag gis googu anna basara ruuxi gët ak ruuxoom gi qad infataxa dafa ubbeeku fa idan fataxa basaru ruuxi saa yoo xamee ni jotag ruuxu gi na fi zaati yi ci jëmmam ji taalaa dafay janoog jamia al akwaani mbooleem nekkate wal awaalimi ak mbooleem aalam falaa taxtalitu alayhi ruya gisi nii di ci moom fa haada huwa annadaru billah loolu mooy xoolee ci bëtu borom bi subhaanahu wa taala wasamau billah déggee ci yàlla nag mooy an yasmaa جميع ألفاظ الوجود في جميع العوالم واختلاف تسبيحها وأذكارها في الآن الواحد jàmm day dem ba toll foo xam ne dafay dégg mbooleem baat yi nga xam ne wujud bi nekk teef yi dañ koy wax ci mbooleem aalam yi aalamul ulwi ak aalamul suufli ak sabal yi ñuy sabal ak nu mu wuute wuute maanaam làmmiñ bi nga xam ne ci la malaaka yi di sàbbalee njanaaw yi di ci sàbbalee euh, doj yeeg garab yeeg doomu aadama yi kenn ku ci nekk sa làmmiñ nu mu wuuteeg sa morom lépp daf koy dégg ci benn aan bi ci benn jamono bi waaye seeni sikar yi tamit daf koy dégg ci benn jamono فلا تختلط عليه درد جخصو سي موم دي نيت دي موي سي كرب دوبي دي موي سي كرب ملاك دي موي سي كرب بيتي دي موي سي كرب دوما درد جخصو سي موم فلا تختلط عليه كثرة ألفاظها وتحتفظها بعد يبري دو تخ مجحفو سي موم سبل يبري تامي دو تخ مجحفو سي موم ka annahu fi kulli lafzin laa yasmau gayra day mel ni baat bu ne du fa dé maanaam du dégg lu duwut baat boobu fa inna amra al aamati fi istimaai moona Cheikh Tidiane radiallahu anhu ne mbiram aamatu naasi nag ci istimaa ci dégg googu la yasmau illa lafzan waaxidan maanaam tey nitu simple mënta dégg lu duwut benn baat ñaari nit buñ toogoon wala ñetti nit ci kanamam من تباي سلتي وخي لدود وخو كانت وإن كثرت عليه الألفاظ بباد يبريرك عجز عن تمييزها دفعي لطو كي رانيات للين دفعي لطو كي رانيات للين خمني ممي بات يوي والسالك أجسوه جنك في هذه الحال في بوبل حال قلنا وهن يسمع جميع ألفاظ الموجودات dafay dégg mboolem baatu nekk ci wa tasbihaha ak seeni sàbbal fala taxtalitu alayhi dara du jaxasoo ci moom intaha wax ji foofu la jeexe wa qawluhu amma waxam ji ñuy wax nag wa yadahu alladi lati yabtisu biha day yàlla day doon loxooyi jaam bi nga xam ne moom lay njëbee mu ne fa billah jaam bi dafay njëbee ci yàlla laa bi quwwatihi duut ci kattanam fa yakunu fi quwwatihi waaye nag dafay nekkee ci kattanam law azina lahu fil batsi su ko digalee ci mu njëb maanaam dal ci kaw nit la qatala alfa alfa rajulin fi laxzatin waaxid dina rey junni junni góor junni junni nit ci benn génde ndax yàlla ab batcoom dafa tar inna batca rabbika la shadid wa hakaza nuunu fa haadi nuunu lay demee fa haadihi al quwa al ilahiya boobule kattan kattan yàlla noonu lay deme ci jaam bi maanaam yàlla dafay def te jëli ci jaam bi may ko kattan lu rëy rëy rëy rëy wa qawluhu waxam ji wa rijlaahu allati biha suñ borom may doon ñaari ndëggu jaam bi nga xam ne ci lay doxe fa innahu nee na wax jooju innahu li ngir te mbir mooy fi hada al maydan ci boobule domaine in yataxatta al wujuda kullaha fi xutwatin waxid yadaw rijlahu masalan fi l ard in yataxatta ndeen jéego na al wujuda nekk fee fi kullaha mboole seen fi xutwatin waxid ci benn jéego yadaw rijlahu masalan fi l ard dafay teg ndëggoom li ci kaw suuf wa yadau rijla al oxra wara al arshi ci des mu teg ko ci ginnaaw aras laakin bi ruuxi loolu nag mu ngi koy defee ci ruuxoom gi laa bil jasad waaye du ko defee ci jëmmam gi loolu mu ngi koy defee ci ruuxoom gi waaye du ko defee ci jëmmam gi euh, mu ne intaha wax jooju tamit foofu la yem وقوله وخم جمي وهن ولسانه الذي ينطق به لم أكلم لم يم يلا دون لم يم بمي وخي فإنه ممجام جام ينطق ها هنا دفاي وخي في بنطق الحق كي من نيم يلا سبحانه تبنا مسلم وتعالى تكين يقدر في هذا الحال في جامونو جوجي دفاي ام كاباسيتي أن يقرأ مجانب مئة ألف ختمة تيمير جني ختمة fi miqdaari maa yaqra'ul qaari suuratal ixlaas ci e, dayoo bi nga xam ne aji jàng ji ci la mën a jàng suuratul ixlaas maanaam suuratul ixlaas jàng ji nu mu gaaw gaaw gaaw gaaw ci ki nga xam ne yeggagut ci maqaama bi borom maqaama boobu mën na ci jàng téeméeri junni kaamil qul na moo na Cheikh Tidiane wax nañ ni innahu ndaxte moom li an annahu ndaxte moom muttatifun bi anwaari sifaatil xaqi dafa melowoo leerab melow yàlla yi falaa yajizu an cheyin dara du lott ci moom maanaam du lott ci dara fa ida sara fi nuuril qudrati saa yu doxee saa yu leerab kàttan ak yàlla amila fi lwujudi maa la tuxitu bi l uqul day def ci mbindee fi loo xam ne xel ko takk xataa annahu yaqdiru fi miqdaari saa fële ci ba sax moom dina mën ci dina mën a dina am capacité yi def ci lu tolloog waxtu fi mahallin ci bërëb wa yaamalu fi mahallin aaxar eh, muy jëf di liggéey ci beneen bërëb an yatazawaja mu sëy im sëy imra sëy ak imraatan soxna soo xam ne yuuladu lahu dina ko jural minha mu tukkee ci moom wala waladan masalan ñaar fukki doom ci misaal wa hakada noonu la maanaam yàlla bu ko li nga xam ni mooy eh, al qudra al ilahiya ci loolu lay rañaanee ba day am capacité def loo xam ne xar baax la wa qad waqaa kathiran lil awliyaai haada loolu moom na seeti ne wali yàlla yu bari loolu dal na leen fa inna allaha laa yujizuhu shay fi lmawjudat yàlla dara lotut ko ci ci ci ay nekkteefam wala yataqayadu bil aadaat aaday tënku ko fa fi gaybihi ma la tuxiitu bihi luqul nekk na ci fàndoom ji loo xam ne xel mënut koo jàpp intaha wax jooju itamit falayam qawluhu amma waxam ji mi wax ni wala in istacaada nii ndem jaam bi sàkku na ci man ma xet ma musal ko la ucidannahu dinaa ko mucal li annahu ndaxte jaam bi wasala ila gaayati alqurbi min rabbihi dafa yegg ci dayob jege ci boroomam kaana mujaaban fi jamii maqasidihi yàlla daf koy nangul mboolem jub maanaam daf koy nangul mboolem ñaanam yi in istacaada billah su sàkkoo kattaliku muslu ci yàlla min shay'in ci mbir moo xam ne xaafa minhu ragal na ko acaadahu acaadahu yàlla musal ko ci وإن سأل من الله شيئا فإلا جيال در أعطى أراد شيئا أراده من بالموقع من بدنه أعطاه له في الحين وهكذا يعلى جخوك تسعة سنون له مويدا يدن بأيور لنتدي التصرف لم وقنك الرك منك ثم هذا القرب مناشط جان جيجوغنك التي يقمن اجتمع عليه الطائفة المصرح به في الكتاب والسنة Euh, euh, ijtamaat dajee na ci dëppoo ci jege googu kuréel li nga xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo jàpp alquran ak sunna fi xeyri ma mawdi ci lu dul benn bërëb laysa huwa qurbul masaafa duut jege gi nga xam ne mooy jege bërëb wala qurbul ittisaal duut jege jokkoo wa innama huwa qurbu nisbati faqat jege la goo xam ne jege askano ci yàlla dong la وإن العبد نقص جامبي وضع أولا دنكو دف سنجل بين في غاية البعد موي نكي دايب صري عن نسبة الحضرة الإلهية أسكن في تيري الذي فإن نسبة الحضرة الإلهية نقص أسكن في تيري الذي تقتدي دفع اللامبو أن لا وجود لشيء مع الله ندر نكو في الله kon saa yoo fi bëggee nekkal dara ak yàlla rek yaa ngi ut sàkkal yàlla nawle wala xukma li gayrillah te kenn du atte ku duwut yàlla wala iltifaata li gayrillah kenn du gëstu ci lu duwut yàlla wala taawila ala gayrillah eh, maanaam kenn du jublu lu duwut yàlla kenn du sukkandiku ci lu duwut yàlla wa xadduhaa dayo bi nag an laa yakuna fi qalbi illa allah laa gay dayo bi mooy bum nekk ci xolu aji jege ji lu duut yàlla wal abdu jaam bi wudiya fi wad'ihi al awwal ko teg ci teguwaayam bu njëkk xaytu xaraja min batni ummihi keroog ba mu ci diiru ndayam wa xaytu min ghaybatihi muy xiri ci fàddoom gi huwa moom fi gaayati al bu'di anillah mu nekk ku sori yàlla li kawnihi ndax nekk gi nekk mashghulan bi xuduudihi di yittewoo ay cëram cëru àdduna wa shahawaatihi ak bànneexu bakkanam daaima al uquufi ala taxsili awtaarihi sax ci ci ci euh, euh, jot li nga xam ne mooy ay càkkutéefam ci xaali duniyaahu ci xaalu addunaam laa yaltafitu ila du gëstu yàlla wala yalum ma bihi du yittewoo sax yàlla fahada kooku huwa al abd huwa fahada loolu huwa al bu'd mooy sori an nisbatihi ila allah ci askanu bi mu askanoo ci yàlla walaysa al bu'd ha huna bu'dul masafa sori bi fii du wut sori bërëb fa inna zaata al aliya ndaxte jënn yàlla ji kawe ji jallat jomm na wa taqaddasat te sell na wëlës an yakuna muy nekk baynaha wa bayna kulli shay diggante nag lépp loo xam ne xalaqathu bind na ko masafatan distance taqtadi linfisaal distance boo xam ne dafay waral ak tàqali ko wa kadalika ni ki noonu te jëllat jomm na moom yàlla màgg na wales wa taqaddasat te na an yakuna laha ittisaal muy am ak jokkoo bi sey in ci dara balil wujudu kulluhu waaye li am mooy nekkiteef gi yëpp ci qabdatihi bayna yaday mi ngi nekk ci njëbam gi ci diggante ay loxo moom borom bi subhanahu wa taala min nasatihi l ula ci sosom gu njëkk ga ilal abadi ba faaw wa kullu waxidin min al xalqi ku doon nag ci mbindeef yi wa naani bihim ahlul bodi anillah ñi namm ci mbindeef yooyu mooy ñi nga xam ne dañoo sor yàlla almasguliina almashghulina bi shahawatihim wa aradihim ñi nga xam ne dañoo yittewoo seen i bànneexu bakkan ak seen i mbirum àdduna fahum ñoom fi jamii taqallubaatihim ci seen mbooleem soppandiku bayna yadayil xalq xaq ñi nekk ci kanamu yàlla subhaanahu wa taala man macha minhum képp ku dox ci ñoom macha bayna yadayil xaq yaa ngi ci kanam borom subhaanahu wa taala xaytuma macha ak foo mën a ne di dox wa man saa minhum ku ci daw itamit kadalik noonu ومن جلس منهم كتي توك في نوم كذلك يعني توك في كنم برام جلس بين يدي الحق حيث ما جلس من توك في كنم برام سبحانه وتعالى أكثم من توك ومن رقد كتي تد منهم في نوم رقد بين يدي الحق حي... كيف ما رقد من تد في كنم برام سبحانه وتعالى أكثم من دفع لولو دلو أمثل والحاصل لين بير تنبير منهم من تحرك تحرك بي والحاصل منهم من تحرك تحرك بين يدي الحق كيف كتي ينغو رك ياغي ينغو سي كانو بروم سبحانه وتعالى ومن سكن منهم كيف كتي دال سكن بين يدي الحق يعني دال كانو بروم wa innama hum amuuna an zalik waaye nag doomu aadama yi dañoo gumba wales loolu وفي هذا الميدان في ضمن بوبنك الكافر والمسلم والمؤمن والصديق والقدب والرسول والنبي والملك كلهم على حد سواء في هذا الميدان يسير في جلد بي ويجم بي كدقو كي قدب بي ينطب بي كين صلو تيوني كو أكين صلو رك بور بي ملاك بي يبا كيام ليس أحد منهم بأخف من الآخر فوق يالا دفو كي جاد لي إكي ولي استكدف Eh, illa man kaana min as-siddiqin lu dul ñi nga xam ne dañoo bokk ci siddiqina yi way dëggu yi wa man waraahum ñi nekk ci seen kanam nag in kashafa lahu dalik ñooñu yàlla wuññil na leen maanaam siddiqina yi ak ñi leen sut maqaama yàlla wuññil na leen lool fa ra'awhu ñu gis ko ayaanan sijjanoo fa aataw jamia ma jamia hada al mashhad yi xaqa mashhad boobu seeduwaay boobu yëpp ñu jox ko xaqam ba mat sëkk wal amatu amatu naas nag ñoom amu an hada dañoo gumba ci loolu wa jahilu ñu réeree ko fa adbaru anillah ñu dëddu yàlla bi muanaqati aradihim ci lënkaloog li nga xam ne moom mooy seeni bëgg-bëgg wa shahawaatihim ak seeni bànneexu bakkan bi mutaabaati hawaahum ci topp seen bànneexu bakkan rek lakin lahum uzrun fi hada am nañ njanti ci loolu fa inna safwata al min as-siddiqin ndax way sell yu kawe ci siddiqina yi way sell yu kawe ci siddiqina yi ñoom ila rusuli ba yegg ci yonent yi u'riya anhum alxijaab ñoom dañ leen ñoril kiiraayi fa tajalla lahum ayaan fa tajalla allahu lahum ayaanan yàlla def tajalli ci ñoom ci janoo fa inna man tajalla lahu tajalla allahu lahu xatta ra'aahu képp koo xam ne yàlla wuññil na ko kiiraayi bam gis ko lam yaqdir an yaltafita ila gayrihi du mën a leneen lu duur yàlla moo tax ñi weddi gis yàlla te doon ay tijaan dañuy weddi waxu Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane nee na képp koo xam ne yàlla wuññil na ko kiiraay bam janoog moo moom yàlla ayaanan ci janoo ci bët kooku yàlla saa yoo xamee yàlla defal na ko tëjali boobu xatta yaraahu ba mu gis yàlla lam yaqdir du mënati an yaltafita ilaa gayrihi di gestu jëm ci leneen ولم يقدر أن ينصرف عنه بشيء تدمنا صفندكو وليس يالك لنن وتهره ذلك التجلي سيني واي بوب يالك سين كو بام جنوك موم دفكو اللابل من جميع حضوره سيمبولم تر دي بكان أم تموم وشهواتي أن بولم بانه بكنا بكدفينك يقال فيها في الإشارة عنه نيوه في لولو ci ci junj ci kooku nga xam ne subhaanahu wa taala mooy borom bi subhaanahu wa taala ñu wax ci moom ne man kashaf yàlla wax ne man kashaftu lahu an sifaati alzamtuhu adab képp ko xam ne wuññil naa ko samay melo dinaa taqaleeg moom li nga xam ne mooy teggin maanaam dinaa ko defal teggin mu sax ci wa man kashaftu lahu an zaati ku ma wuññil sama jëmm ji nag alzamtuhu adab kok dina ko takkalek li nga xamne moy alkande fo huwa listihlak atab moy alkande alkande gogu nak قالوا وحنا ان هذا العتب بوبل الكاند هو غايه العرب موي دايو تاكوتيه الكاند بوب يالا دي واخ موي جيخ سي يالا الكو جيخ سي جيم يالا دي ومطلب العبيد موي تاكوتيه فو جام فانه عين الوصول ندخ موي جيم wa amma al awaamu daal nag ñi nga xam ne ñooy amatu naas fa innahum ñoom urxiya alayhim alxijaab dañoo yoor ci seen kaw ay kiiraay fa lam yaraw rabbahum duñ gis yàlla képp kuy dàq gis yàlla yow mahjub nga te yàlla wax na ci alquran kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubuun ñi nga xam ne kalla ab jéggi innahum ñoom la mahjubuuna ñi ñuy yiir lañ an rabbihim seen borom yow ma isin keroog gis pénc gis nga li xew fii ci àdduna rek mooy xew ci àllaaxira kuy dàq gis yàlla ci àdduna ëllëg yowmal xiyaam munoo gis yàlla ndax kiiraay yi tax nga koy dàq fii ci àdduna moo lay yiir yàlla ëllëg yowmal xiyaam moo tax Cheikh Tidiane ne ñi naas mooy ñi nga xam ne dañoo yoor kiiraay ci seen kanam falam yaraw rabbahum gisuñu seen borom wala arafuhu te xamuñu ko fastagalu bi hawaahum ñi yittewoo seen bànneexu bakkan wa sahawaatihim ba tey seen bànneexu bakkan maa kaw ni yim bay na yada yi ànd ak ñi loolu lépp nag ñu ngi janoog yàlla te munuñ koo gis is laa yarawnahu ndax munuñ koo gis laakin mawdi mawdi laakin na mawdi tahqiqi waaye lii nga xam ne mooy bërëb ak loolu ne anna kulla waxidin minhum ne kenn ku nekk ci ñoom wa min annabiyina ak yonent yi wa siddiqina ak way dëggu yi wa baadahum ak ñi topp ci ñoom kullu dalika kum ci mënta doon ci ñoom muraadullahi minhum nam nama bi yàlla ci ñoom mooy ñu gis ko laysa minhum waxidun huwa fi dalika bi nafsihi laysa nekkut minhum ci ñoom waxidun kenn huwa moom fi dalika ci loolu bi nafsihi ci boppam maanaam amul kenn koo xam ne dafa nekkal boppam bal kullu waxidin minhum kenn ku nekk ci ñoom huwa moom fi iqaamatillahi lahu fi dalika alxaal ci mi ngi taxawee ci taxawaay ji ko yàlla taxawal ci boobule xaal summa inna zaata alaarif topp nag jëmmi aarif bi tablugu an takuna fi hiya alaamila dafay mujj dem ba nekk ni moom mooy jumtukaay bi fi l asyaai ci mbir yi bila duaa in ci lu duwut ñaan wala zikrin wala sikar تبلغ حتى أنه لو اجتمع عليه ألف رجل ديدا بطل فوق من بجني جور دجيوان يقتلونه انجر رايكو في محل ليس فيه غيره في برب بوق من كنك فكدود موم حيث تعجز إغاثته بغخ من دين اللط سكوك الدنبالي ثم نطق في ضميره أن يعجزوه أو تحرك ضميره لعجزهم مو وقت في ديرم لط لولن ولا سهمو xalaat ci conscience am lu leen lottuloo ajazu anhu fil xiini ñooñu dañuy lott ci lor ko ci saasa wa in shaa tafriqa samlihim waqa waqaa alqitaalu baynahum bu ko neexee sax mu dugal fitna seen biir ñoom junni góor ñu ñëwoon pour faagaagal ko ba ñoom ñu daal di rayante ci seen biir wa ajazu anhu ñu dem ba lottu ci moom duñ ko mënal dara وإن تنزل عليهم العلة المعروفة عند عام عند العامة بالنطق وهي السبات نزلت عليهم في الحين bu ko neexee علة mu خمنة ci بن قملة عند العامة عامة الناس بالنقطة ستم tomb قملة وهي السبات نزلت عليهم في الحين وتعطلت الحركة منهم فلم يقدروا ما نمو دمبا رايت سينا بينغو ينغو بدوت من ينغو دون أن يستعيذ بالله لول نك من نكو دفتدو مسلسة يالا لأنه يفعل الأشياء بالله نح لبول ميدف دفتو دفت يالا ولو تحرك عنه العتس الشديد المهلك في برية فقراء دون بوفيكون دفت دفت ألبا mar mu métti daa koy dab ci jéeri joo xam ne bariyati bari bariyatin fuqara wala faqra jéeri joo xam ne amul daa wa caa bi damirihi an yanzila al matar mu xalaat rek ci biiram ne na taw bi wàcce fil xiini ci saati lu doon ñaan taw bi day wàcc wa saa an yufajjira al maa bu ko soobee tam mu ballal ndox mi fil ard ci bu bëggee ballal ndox ci suuf si tafajjara ndox mi day ball ci saa si min tarafati ayn ci lu gën a gaaw xef ak xëcc lakin waay ida waqaa lirrijali haada saa yu jaam bi defee lam yatrukuuhu daiman ida shariba wa lam yatrukuuhu duñ ko bàyyi daiman faw ida shariba su naanee aw tawadda wala mu jàpp aw qada xaajatahu wala mu faj xaajoom famasahu fil xiini daf koy faraat ci saasi maanaam du ko du def xar baax boobu ba pare di ko fa bàyyi muy wéy daf koy def rek ngir faj xaajoom googu bu ko paree mu bu paree mu far ko Mawlana Cheikh Tidiane nag di tënk wax jooju ne lu li am ta am moy wala boog ñu tënk dars bi foofu ba incha allah